wallaay Azim bu ko àq président Macky Sall dalee du baax. ah lu tax nga wax loolu. très bonne question. Hmm. lu tax nga wax. li am yëpp Macky Sall lan la ci. waxal sa taala coow li am ci réew mi yëpp ñaari dossier yi am yëpp nga xam ne moo lëmbëre mooy bu Mame Mbaye Niang hmm. ak bu Adji Sarr yoonu président Macky Sall nekku ci. Hmm. Ousmane Sonko ba muy loolu sa gis-gis la yow. nag yoo xam nga kenn ku ci ne sa xam nga booy wax si nga nit. sooy wax dëgg. xam ne yaa ngi wax dëgg am na ñoo xam ne bu ñu lay déglu nañ xam yaa ngi wax dëgg mais si nga nit booy fen mm-hmm. xam ne da ngay fen ki tax ngay fen xam ne yaa ngi fen boo toogee di nga nii maa mën a fen Ousmane Sonko moo taal otoom mm-hmm. demal boppam si wit bati commandol ñëpp xam nañu àndul la kenn moom Adji Sarr def naak defut ñoom yàlla rek moo xam mm-hmm. waaye moo yóbbu boppam moom moo demalam boppam Sweet Beauté. waaw mais Sweet Beauté nag gars yi fii ñëppay dem massage nag tamit. massage man nag man massage moom ñëppay dem massage moom. man bëgg naa ñam massage. parce que massage bi am ci réew ba indi fi dese yi naa xam massage ban de ban problème la fi def nii man man boobu ba léegi man vrai salle de massage lay wër. te boo indi amee koo xam ne mën na massage na ma dimbali lay wër a suuli mu woo ma ñamal ma massage. parce dama bëgg découvrir parce que massage boo xam ne ba indi gum na bi presque vingt morts lépp ci massage Mm. man bëgg naa xam lu massage biir sax. kon yow mosoo dem massage. wallaay asi mos ñu maa massage. ah war ngaa dem sama a rey. Ah, <laughs> xam ay la ñuy utiliser. yoo xam ne soo xamee sax de massage. dinaa am ku ma la boole. boole ma. dinaa am ku la boole. boole ma ndax ma bokk ci ñi lëmb réew mi. waaw parce que man massage que lii dafa ëpp. non <laughs> maa ngi bii bii tànkam bii tànkam la. Mm. bii kàddoom la yëpp moo ko def boppam. bii moo taxaw wax ni. Mhm. maam mbay Niang yow. moo ko waxal boppam du président Macky Sall yow nekku ci. Mhm. beneen bi yow yaa sol sa bopp yaa taal sa oto yaa demal sa bopp si wit boote. Mhm. la fay xew xew fa nga génn ni Macky Sall la. Macky la yóbbu. gis nga tooñ baaxul. tooñ baaxul gis nga kër nag boo fa dëkkee yow nekk borom kër ga lu xew ci kër ga da ñaan yawal mais tooñ mais moo tax man la moom bu ko àq président Macky Sall dara du parce que man mosuma dégg ci gémmiñu président Macky Sall Sonko. du ko tudd de moom. mosuma ko dégg. moom nag fu mu waxee. loolu nag jaaxal na bëri ba pare ingrat bi am ci réew mi. Mhm. ma daaneel foofu. Mhm. mais président Macky Sall duñ ko duñ ko fal du président de la République ñoom bu ñu wax dañu am président Ousmane Sonko. kii moom nee na moo tey dem suite ba tey. waaw voilà kon na <laughs> tuuti mel ni nee na moo tey dem suñu bëte daa maase wu ci woon rek nag tamit massage moom ah yow nag wax dëgg yàlla dëgg yàlla moo ko moom mhm. même booy dee na nga wax dëgg mhm. na dem si biir bëte na dem mhm. moo fa yóbbu boppam mais man man j'aurais bien voulu Ousmane Sonko assumer man Ousmane Sonko si nga li ma ma xaar ci moom voilà Barthélemy Dias xaw na ko. mais moom assu ah, na que ni. dem na ah maa may ma na que mais li nga xam ne moom la Adji wax ne moom la ko def muy viol moom nee na viol amul musul violé Adji Sarr musul séq ak Adji Sarr dara donc loolu euh, parole Adji la contre parole Ousmane Sonko loolu nag li koy déterminer mooy juge bi nga xamante ne moom moo yor dossier bi moom mooy jugé la fa xew ñun xamuñu la fa xew juge bi mooy jugé la fa xew bu fekkee ne Adji Sarr li muy wax dëgg le premier dina leer su fekkee ne Ousmane Sonko moo am dëgg aussi yaakaar naa ni loolu juge bi dina ko àtte mataane tuuti tey su ma doon jaay drogue mm. nga dugg sama kër ñëw fa Alioune Mbaye di police ñëw mm. fekk la fa ñu la coppet yóbbu la police mm. sa mbokk yëpp fekk la police ñu loo loo def fii. Hmm. buñ ñëwee luñ leen njëkk a laaj. mais foofu du place jaaykatu drogue quand du place. bu bon bu ko teqale non non. non exemple mais li nga ko teqale. exemple dama nangu si li nga ko ah, teqale. xam nga lu tax duma nangu. parce que parce que suy dotee waaw wax ñu la. Mhm. na boo fa demee ci milieu. Mhm. nit ñi la fekkee dañ lay yedd. foofu laa waxee dama bëgg wax ni moom milieu ba mu dem. ku mhm. na ni suite beauté du pour li muy wax ay lambee rek ay yooyu du pour foofu. mais massage la demoon foofu dañuy def massage te nday xadi suite beauté dafa am kayit. suite beauté wax na ko nee na am na kayitam de yaakaar naa bu amuloon kayit du ñeme taxaw devant le juge wax wax ak li Ousmane Sonko Ousmane dafa demee la dañ ne mairie baa ko jox xaw ma la wala. am na kayit la wax waaw. nee na am na kayit bu ko permettre mu mën a ubbi mu mën a ubbi suite beauté. parce que da ngay ruube. ruube mais xam nga réew mi li ñu bëgg a ma li tukkee li tukkee si procès bi rek laay wax ruube bu ñu bëggee ut euh, solution comme ni mm. Ousmane Sonko waxee. Mm. solution moom di livre am boobu ko bind solution mais jëfewu mm. parce que tour bi neex ci sa gis-gis waaw waaw ci sama gis-gis. Mm-hmm. solution comme ñoom ñu ni ñuy waxee solution. mais lan mooy solution bi. Mm-hmm. Mm-hmm. muy na avouer il faut avouer état moitié pardonné. man man doon naa xaar ci Ousmane Sonko. mu taxaw ni Adji Sarr. Mhm. maag moom dañ di parti li mu jaar dañ ko invité faram fàccee mu wax ni. Mhm. man ndaanaan laa président Macky Sall sama grand la ndaanaan la mhm. mais la wax la mais na taxaw avoué moom. man Adji Sarr dañu am lu ñu séq xëy na doon na ma forote nangam nangam seytaane man na ma wala mënuma mais li mu wax nangam mu ñu xam man boobaa damay ànd ak moom parce que may xam ni guerrier la parce que Adji Sarr mais yow tax kut kut kut nga bëgg a wax ni nga bëgg dëggal ni am na lu fa xew parce que nga naan na taxaw assumer que ne am na lu fa xew pourquoi. ak ku tëggu yow nga bëgg nga bëgg a mais la xew tribunal. waaw yow bañ am na yoo xam ne kenn du wax ci télé wala ci. waaw loolu ay waxu Adji Sarr la rek. ay waxu waaw ay waxu moom mënu woon ñëw waaw ay waxu aj loolu li tax ñëwul loolu ay raison la moom am na ay raison li tax ñëwul si nga maa yow mii waaw ji boo tax woon fii ma génn li ñuy génn ñun ñaar ñëpp mm. nga yuuxu ñu ne la ñu dañ maa viol nga ne Souleymane dafa ma doon viol yàlla xam na ni foo foo rokkin mën dobiñ la ko fa mm. damaa yàkkamte ñu taxaw nga wax ndax làmmiñ du lekk morom mam te ñorul mm. fan laa la ko defee naka laa la ko defee nga wax ma wax nit ñi nit ñi borom xel lañ mm-hmm. soo waxee ba pare danaa wax ba pare buñ ma tëjee nag après ma xam ni tëj nañ mais nit ñi dinañ jugé Mm-hmm. mais dinaa wax sama aqulaay taala ak sama diggante ak sama bopp mais nag soo boo fay ki na di rien consent mm-hmm. bu nga daw mm-hmm. ñëwoo te yow yaa doon taxaw di wax ni damaa yàkkamti procès am lu mu gaaw gaaw yàlla na bu ko kenn rey nag yàlla na gudd fan allo dafa ni am na ko dugg si bu ko kenn rey yow bare nga ñëw nga dem ba Casamance toog fa allo ah mais non te ñu wax diriw nañu wax dëgg nag allo allo waaw salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi bu dee écouteur nga takk nga dindi ko dégg-dégg bi leerul déedéet takkuma écouteur waa kon jegeel sa téléphone bi bu baax fi ngay waxee ñu ngi si jàmm waa alhamdulilah tur bi ak fooy wootee. alhamdulilah man la euh, Morone laa tudd booy Morone. Morone mm-hmm. bu Pikine Morone. <laughs> man la de. Mm-hmm. yéen si jàmm. ñu ngi si jàmm waa. waaw dama duggoon léegi doon xool euh, mm-hmm. affaire bi ma bëggoon di participer waaw parce que ñu ngi lay déglu waaw situation réew moom yaakaar naa ñëpp la intéressé. waaw. mais bu bu nee dañ naan naa féex moom. Mm. su amee ba yam mooy ñi nga xamante ni mooy ñi jàppale Macky parce que mag yi nga xamante ni tey jii am nañ ay doom. Mm-hmm. yoo xamante ni toll nañ ci am diplôme wala ñuy wut liggéey. Mm-hmm. am nañ situation réew bi nu mu mm-hmm. parce que buñ sañoon seen doom day liggéey. am di leen teral. léegi bu fekkente ne yow da ngaa nekk jeune amoo opportunité boobu noonu yëpp. c'est-à-dire kenn mayuloo opportunité boo xamante ni di nga mën a liggéey amoo ko. léegi parent boobu noonu danaan ma ki ma ki Hmm. te parents rek cest hmm. à ku fi ànd ak hmm. da ngaa s da yow ñu bi doo jege sa téléphone bu tuuti li ngay wax duñ dégguñu ko bu baax de yaa may dégg waaw ma ngi lay dégg nii bu baaxee foofu moom boo ko fa tëyee rek mu baax waaw ok léegi ma waaw affaire bi nii dafa dépassé affaire Sonko Mm-hmm. parce que problème problème bépp la. léegi mm-hmm. ñoom ñu ngi naan Sonko dem ba tey moo ngi taal moo ngi taal dëkk beeg. benn nit mm-hmm. mooy yëngal Sénégal bi. ba pare yow nan lañ lay jëlee sa oto. indi sa kër. baare ne kenn du dugg. te waxul joxul dogal boo xamante ni. dañ naan bu kenn dugg këram. dëgg la léegi loolu jàpp nañ ne loolu yoon la léegi Sonko yónniwul kenn da dem kenn. man ci côté arène national bi laa dëkkee. gis nga làmb sax bu fi amee. yaay gis malfaiteurs yi dañuy dugg di profité parce que mbooloo la ñuy bañ. dëgg la nañ bañ nañ nañ bañ yenn yenn yi bu koy wax ci ci ci média yeeg. di mhm. manipuler nit ñi liy dëgg. Mhm. mooy dëgg Sénégal dëggu dëggu dëkk la. Mhm. bu nekkee dëggu dëkk nag te duñ fi doxal dëgg loolu leneen lay nduru wasalaam loolu la amul lu dëgg la jërëjëf ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax moom moom ci la mu ñëwaat rek mooy euh, Sonko yónniwul kenn pour mu dem taal fenn wax na ni aussi sambabo yi dañuy rax ci li nga xamante ne yu mel nii bu amee sambabo yi dañ ciy rax ak aussi ñëw na aussi ci euh, tëj gi ñu tëj kër Ousmane Sonko moom gis na nit aussi c'est pas normal. booy moroon xam naa booy moroon ah xam nga ko. Hmm. xam naa ko bu baax. Mm-hmm. am na bu fekkee ni nag ñi woote ñëpp ni moom lañ mel. waaw mu réew <laughs> pour man nit ñi dañuy woote rek pour wax mais duñ wax li ne ci ñoom. Mm-hmm. beneen bi il faut nit ñi comprendre leen. Mm-hmm. Ousmane Sonko même bu fekkee ni ña fa nekk. Mm-hmm. ña nekk këram di baraake la ñuy wax xaw ma. nekkuñu ci yoon. du loolu tekkiwul ko raison dana war a taal. cest à il faut nit ñi comprendre ni. kenn kenn waxul Ousmane Sonko bu fekkente ni li ñu ko teg du yoon kenn àndu ci loolu teguñu fi. mais li ñu fi teg mooy pour ñu bàyyi xel ni réew mi ñun ñoo ko bokk.